bande bi presque na ba pare Crazy Mass noo gisee événement euh, lu du rab gaal seen bëgguñu tey ñëw nga presse tey gëjoon nga ko def gars yi gisaat nan la noo ko gisee tey. waaw d'abord dama lay nuyu di nuyu aussi internautes yëpp di wax ne créer le from de from Yoff <laughs> waaw prestation bi bon déjà rek damay remercier euh, lu dul euh, rab gaal seen parce que li yombul. ay melomaan volonté wu ñëw jaayante teg ay affaire comprendre nga te c'était pas évident peut-être ñu ngi ko doon xaar ci rappeurs yi ak producteurs yi ñoom ñu ñafe loolu kon respect à ñoom chapeau à ñoom. jaajëf curieusement si lu mu nekk jamono bi ñu toll. waaw maa ngi si liggéey euh, d'abord rek génne naa euh, jabaru jàmbur comme vidéo officielle maa ngi ko génne yàggul 28 décembre bi nii na ko yi dem xooli si euh, sama chaîne YouTube 3w youtube.com slash Crazy Mass mais mais sound boobu noonu jabaru jàmbur histoire réelle la wala li nga créé la. bon mën naa ja. <laughs> parce lu tax ñuy laajte loolu ni nga ko rabee ku ko déglu day xam ne gan gi est nekkul du nekk dëgg dëgg lay nekk di teg donte am na nag mais est ce que yaa ko dund wala dundoo. waaw waaw non dunduma ko mais loolu nag mooy bind ko loolu mooy loolu mooy charme bind. maanaam nit nit bind sax nga ne lii forcément moo ko dund parce que bu ko dundul woon du si am expérience bi yëpp mais loolu la ñuy wax rek lu ñu bindee artistiquement quoi. Hmm. ok mais nice na léegi lu ci kanam lan la ci kanam Crazy ci kanam mooy gars yi naa leen mayaat vidéo yàggul Yoff aussi naa ko may concert plein air euh, avril incha allah en plus euh, juin dinañ jël aussi salle bu mag. juin instant. jël salle bu mag dinañ génne projet aussi si 2020 bi. projet bi mën nañ xam ni muy tudd. waaw Spartacus. Spartacus. Mhm. jaajëf Crazy Man di ngi lay bëgg. waaw jaajëf jaajëf. Duuta Sekk damay saay foo damay raam di jouer et gaz Duuta Brain damay saay foo Betty Niggas damay saay damay saay foo damay raam di daw di gee Duuta damay saay foo saay foo Betty damay saay foo rap dawal bege jouer et damay saay foo saay foo Betty damay saay foo rap di tàkkante saa damay saay foo saay foo fo rap bi joué ba bi break day gars yi gëj na la déglu si loo nekk Julio ginnaaw bi nga génnee sa projet bu njëkk boobu ba léegi déggaatul la ginnaaw urgence si loo nekk. yeah salaamaaleykum Djily salaamaaleykum ñi seetaan ñëpp donc man la Julio l'absolu donc di wax ni mësuma jug ci job boobu ba léegi maa ngi ci job parce que Julio moom ci lu am qualité lañ ko xam moo tax par buñ tëjoo rek na gars yi xam ne ñu ngi waaj lu am qualité te buñ ko génnee gars yi dinañ xam ne lu am qualité la quoi. gis nañ temps yaa ngi def ay freestyle di ko génnee mais Xulio projet la gars di laajaat Xulio si lu mu nekk lan lay waajal jamono bi ñu toll. waaw bon projet yi ñu ngi ñëw parce que bu ñu defee dara rek am na lu war a ñëw. freestyle yi donc gars yi gëjoon nañ dégg Xulio c'était très normal ñu génnee wane ni ñu ngi fi ñu ngi liggéey ba léegi donc projet yi ñu ngi ñëw yàggatul dara na ko gars yi xaar. projet yi ñëw mixtape lay doon album EP lan lanu mën a xaar Xulio indil ñu ko. waaw bon mën nañ génnee lu nekk mën nañ génnee mixtape mën nañ génnee album mën nañ génne saa dépend rek ci lu mu laaj donc am na staff boo xam ne dañuy liggéey ci loolu staff bi lu ñu wax rek incha allah loolu la ñuy génnee quoi. nekkatoo Daba Daaxe Xulio léegi fan la nekk. waaw nekkatuma Daba Daaxe instant yi maa ngi ci suñu labelu bopp Black Legend Music. kon mun nañu xaar label boobu génnee say waaw waaw incha allah li may génnewaat ñoom ñoo koy génne bu soobee yàlla donc actuellement Julio mu ngi Black Legend Music te sama prochaine sortie yi ñoom ñoo koy def incha allah. jaajëf Julio ñu ngi lay bégg. yee jaajëf ji li de. jaajëf ñi nga taxaw ak Ibnu Ziaza from PA. Ibnu naka mu nice. ji maa ngi lay béggee bu wér. génne projet bu nice dafa leer. boobu ba léegi gars yi di xaar Ibnu Ziaza dégg nga ñu soraanoo ba léegi gisuñu lan la. waaw mais euh, yaakaar naa avant tout maa ngi waa équi Equivox TV ah maa leen bëggee bu wér di la bëggee bu wér ah xam nga euh, defoon nañu après sorti wu album dafa leer bi benn concert plein air euh, ñoo ngi pare Sorano li ma ko waxee woon aussi tam moo ngi si dans le 21 février bii nii la quoi date bi ñoo ngi koy affiche yi ñoo génnagul mais jàpp nañ date bi le 21 février incha allah c' est confirmé ñooñu Sorano. koo ciy àndal le 21 février. caala wala yow yaa ko tëggal sa bopp. waa waaw waaw ñoo ngi ànd ak euh, Ceki Prod. Cha ak ak Ziaza Evans yëpp ah ñun ñett ñëpp ñoo ko lii woon. jamono bi à part bi ngay waajal. sa côté projet sans ni looy waajalaat. waaw am na dina may vidéo yoo xam ni dina génn avant avant Sorano avant Sorano dina may bagage yoo xam ko génne incha allah. juste rek euh, pour lan promo événement bu ñu jëm mais bu loolu kiiwee tamit dinañ topp affaire yi ndax région yi nii nii nii le 11 bi war naa dem bawalu si tamit lépp tamit si cadre album bi la gën ko yaatal suñu paree war nañ dugg ci région yi pour gën a ñoom tamit si lañ bokk ko affaire bi rek du dakaar kese quoi. Hmm. boobu ba léegi dafa tourné ba album bi génnee ba léegi album bi war na def un waaw léegi mu def un an nag. Euh, mën naa ne 12 janvier la génnoon 12 janvier bi di ñëw lay def un moo tax ñu bëgg tëje benn concert bu mag Sorano xam nga after loolu nag génn waa région yi ñëw moom ñu aussi tamit gars ku ci ne jot si quoi. le 21 février nga ñu yóbbu Sorano. incha allah date bi kiiwul. comme naan préparation bi gàttul. non mais loolu yàgg nañ si nekk ah yàgg nañ si nekk juste rek lan la date bi day génn gars yi ñëw wuy si ñu rek après mooy loolu ah. am na solo kon ñu xaar le 21 Sorano. incha allah na ko gaa yëpp xaar le 21 février Ibn Ziaza Sorano. jaajëf Ibn Ziaza. Karbala gars yi gëj na la dégg yow it euh, si loo nekk ginnaaw bi nga génnee benn single bu nice comme mala lu topp si comme mala lan la. waaw suite bi moo si topp incha yaagatul dara si gars yi dinañ amaat yeneen nouveauté yeneen affaire yu bees yoo xamante ne bi nii moom lañ leen jagleel lépp lépp lép pour waajal album bi donc di waxaat gars yi que ne leen nañ bàyyi xel album bee ngi ñëw incha allah ça sera du lourd man ak boss beats la donc yaagatul dara di ngeen am ay nouveauté incha allah quoi. album ngay waajal. waaw album la ñuy waajal album la ñuy waajal comme ni ñu ko waxee woon rek. donc def nañ deux mix-up def nañ main levée mu nekk succès def nañ teg tànk mu nekkaat succès donc on n'a pas le droit à l'erreur moo tax incha allah album la ñuy fas yéene fan euh, si si yi si 2020 bi nii incha allah quoi. Karbala bi nga toogee dégg Mister Zou bàyyi na rap loo yëg. waaw lu ma métti ah lu ma métti franchement loolu moom euh, voilà ñun ñëpp dañoo def ñoo yéem quoi ñun ñëpp la surprendre sax parce que déjà c'était pas une décision boo xam ne xaaroon nañ ko si Zou quoi mais bon. Euh, li li ñuy wax rek kenn ku si nekk tamit am nga sa yoon am nga sa destinée am nga li nga xamante ne bi nii mooy say choix donc boo ko jëlee aussi itam dañ gars ñu koy respecté quoi mais d' autant d' mais métti nañu trop franchement. métti nañu trop mais moom daawoo leen toog di ci waxtaan bàyyeem nii nga daan gis mu xaw a découragé. non non non non musuma musuñ moo tax ma ne la looloo tax ma ne la décision bi daf ñu bett parce que euh, musuñ ko woon xalaat. d'ailleurs euh, am na benn pour affaire bu mu doon waajal nii sax yàggul dara ñu ngi si doon ñu ngi si doon waxtaan bañ si waroon def benn sound boo xam ne mooy loolu même man sama album jour naroon na si nekk quoi donc musuñu woon am ay discussion yoo xam ne ça tournait autour de ça quoi donc moo tax mu bett ñu ñun ñëpp quoi franchement. mais jaamuru bi tey euh, Mr Wiki bàyyi na Azou bàyyi na euh, Dow mi ngi États-Unis mm. ci ga déggatun ko Karbala kase si des comme kuy rab jamono bii. jaami ruu bi mën nañ jàpp ne tas na non tasul maa ngi fi parce que man rek jaami ruu laa boo déggee bu gaay bu ñuy wax bañ na ko bañ naan Karbala jaami ruu te képp ku yàgg suivre game bi war na xam ne maam tey jii nii liggéey nañ fi loo xamante ne bi nii nekkul loo xam ne day day ñëw rek xëy rek du jour au lendemain mu disparaître na gaay jàpp ne Euh, jaameru philosophie la jaameru la benn affaire la boo xamante ne bi nii ñun ñëpp kenn ku si nekk si ñun mi ngi woon mi ngi si ñun quoi dañ koy véhiculer donc jaameru du mus a tas du mus nekk loo xamante ne bi nii day disparaître tant que am na ay rapports yoo xam ne ñu ngi koy teewal te man je je crois que je suis bien placé te tamit am naa capacité am naa potentiel yoo xam ne war naa mën a tenir euh, turu groupe bi mun naa mën a soulever lambeau bi téye ko flambeau bi continuer ko di ko yeggali quoi donc jaameru ça existe toujours parce que Karbala mi ngi fi quoi jaajëf Karba ñu ngi lay. Eh, bëggee bëggee bu wér.